daf ñoo delloo euh, cër bi ñu ko jox ndax dañ ko tànn jiital ko mu dem ci ndaje boo xam ne ña fa des ña fa daje mat nañ deux cent personnes ña fa jël parole ëpp cent presque ñëpp joxe carte blanche mu ne moom mënuma joxe mandat mënuma joxe carte blanche ndax waxtaanaguma ak samay nit loolu dafa am solo ci politique parce que nit duñ la jiital jox la lépp nga jël lépp moo tax mu dellu siwaat nag pour waxtaan ak ñun ci loolu li ngeen ci war a jàpp mooy tey parti bi dafay travailler ci ñetti option euh, sunu parti mën na samp mbër mën nañoo jël président Modou Diagne Fada samp ko muy candidat parti bi su ko bureau politique dogalee mën nañ jël candidat bi Macky Sall tànn bennoo tànn ko ñu jàppale ko su ko bureau politique dogalee mën nañ ñit jàppale beneen candidat boo xam ne bokkul bennoo